seede lu rafet eh, ci Sidi Lamine Niass eh, tey jii tamit ñëw ngeen feggoog ñun ci bés bi mhm. soo ba léegi groupe gaa ngi fii presse bi yëpp ñu ngi fi mhm. ñu ngi la koy jaal bu baax a baax eh, dina jaal itam ki nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk mhm. sëñ bi bopp tey jii tiis dafa dal ci kaw Sénégal Sidi Lamine Niass Walfadjri rek moomu ko ñun ñëpp ko bokk ndax fii lañu ñu dalee baa kon tey dama ne woon du ma tëdd ci lal te ñëwuma fii ci Walfadjri ndax te jii buñ tey wax ci presse bi ba ñëpp duñu dégg

donc ku ñëpp tuuf li nga tooy ci subaak léegi ñu ngi naan la sidi ku engagé la sidi la loolu man ko man télé fekk di wax su ma yàqamti woon sax damay parce que xam naa ci quel que soit alpha parce que man damaa bëgg nit ku dëggu ndax dëggu ci réew mii dafa en voie de disparition te sidi Lamine xoolul bu ma waxee ci day wax pour askan wi rek tax donc lu mel ni bu dalee ci kaw Sénégal subaak léegi kenn lekkul kenn naanul man bi ma ko yëgee ci 10 heures ba léegi damaa am migraine parce que mënu maa gëm ne su ma xoolee photo yi dama naan allahu akbar est-ce que lii am na yàlla rek mooy dëgg yàlla rek a wóor gis ko jàppul si yàlla jàppoo ci dara gis nga ñu teg ay noppam du ñu dara lii tey yàlla won Sénégal te chaque jour mu won ñuñ ko

il a toujours été un contre-pouvoir mais il aimait dire demain, sa contre-pouvoir ne veut pas être ne veut pas dire être contre le pouvoir nuance am na Amna solo si Lamine ci bëgg a wax ndax ñun On a ko ñaanal Sénégal kon euh, premier pierre maison de la presse maa nekkoon ci ginnaaw Sidi Lamine ne jëlal bi nga raax ndax tax kon Sidi Lamine discours ba nga presse bi dañ bind lañ ko jox mu il lui revient de droit la maison de la presse ñu bind fa maison de la presse Sidi ak ak ça relève de l'État. merci suñu naataangoo yëpp waaye nag euh, presse bi ñàkk na ndax moo ko sànq ku doon xeex ngir démocratie mën moom boppam loolu bokk na ci